نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون لك لأجرا غير ممنون bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk yi yaatal mbindum alxuraan ñi ngi ñëw fii tey ci Matam di fi def concours bi nga xam ne moom mooy concours zonal ëmb nag région yi muy Sédhiou Kédougou Matam Tamba Ziguinchor ak Kolda muy région yi nga xam ne ñoo féete ci sud bi ñu beral leen am mbind e, ngir e, gën leen a soññi gën leen a encouragé di leeral nag ñu ñi gis ñu teew fi ñoo ngi fi teew ci e, ndigal kuréelu yaatal mbindum alxuraan kuréelu yaatal mbindum alxuraan nag sëriñ Fallou Seck sëriñ Fallou lu ñun daal moom moo jiitee kuréel gi teewal fi magam alxaaji sëriñ Seck sëriñ Xaadim Njaay it mooy ki nga xam ne moo jiite lépp jëm ci wàllu scientifique ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu lekkal seqal liggéey bi ñëpp ñoom lañu teewaloon fii muy jataay bu am solo boo xam ne wax bi yàlla euh, mi ngi wone doxug liggéey bi mi ngi wone it bëggul liggéey bi euh, candidat yi nga xam ne amoon nañ ko fi mooy 18 candidat ñoom ñëpp it yàlla def na tawfeex amul kenn ku delloo ay kayitam amul kenn koo xam ne Euh, nee na euh, daal mun a bind ca loolu at yi weesu doon na am ko xam day ñëw ba agsi rek ñu ne ko mm, dangay ngay mokkal bu mokkal doo ko mu ne amul xool ñu ne ko déedéet mu delloo kayitam loolu amuñu ko ren maa ngi wax sànq rek ci ne doy na sëkk tawfiq doy na sëkk ndam ku nekk ci ñoom sëñ Abdou Seck bi mu la joxee sa enveloppe nga dal dem toog sa fi nga toog di xaar ñu joxe ndigalul tàmbali gi ñu dal di tàmbali ñoom ñëpp ci kenn xoolul fenn Eh, ku mokkal noonu téere bi loo mën a bind bu baax na bi ngay li ngay bind bu dee alxuraan rek eh, tubaarkàlla baax na kon loolu ab soññ la bu ama am solo boo xam ne ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax eh, di ñaanal C3S mi nga xam ne moo initié liggéey bi lépp lu ci yéene yàlla na ci am lu kawe njortam yàlla barkeel société bi ba ni muy taxawoo alxuraan mu dem ba nekk asaka ci li nga xam ne moom lay taxawoo alxuraan ëllëg ndax boo ko yàlla barkeelee Mm, dana amal njëriñ daara dana amal njëriñ ñooñu daara dana amal njëriñ ñooñu eh, waa alxuraan ñëpp kon ñoo ngi ko ñaanal borom bi tabaaraka taala barkeel ko di ñaan it borom bi tabaaraka taala eh, defal ko tawféexu nangu ñun ñëpp yëngu yi ñu ci yëngu lu ci waaye def moo xam alal la moo xam xalaat la moo xam xam-xam la moo xam doole la moo xam waxtu la looñ ci def rek luñ ci def ñun ñëpp yàlla na ko borom bi tax laa nangu yàlla na ko yàlla gërëm ba defar ci sunu àdduna defar ci sunu àllaaxira kon loolu lañu ñu amoon ci ay kàddu yoo xam ne ñi ngi ko doon yëkkati ci turu euh, waa scientifique ñi nga xam ne euh, Serigne Xaarim Ndiaye moom moo ko jiite ak mbokk yi nga xam ne ñoom lu ko seqal ñëpp ñu wut leen fii ci liggéey bi nekk fi nekk fi seen ndaw nga xam ne ku nekk ci ñun rek foo teew sa morom nga fa nga fa teewal maatam li muy sori sori mbégte lañ doon ñëwee ndax dañuy xam ne liggéey bi liggéey alxuraan la ci liggéey bi alxuraan lépp loo ci def rek euh, da ko war a xeeb Euh, ndax dafa jarlu ko ëpp saxaaba yi ñu gënoon sonn ci ay xar ay xur ak i tund lañ doon yéeg euh, di liggéey liggéeyal alxuraan kon mu yàlla defalee tawféex ñun nga mën a dugg sa oto daw sa tali ba àgg fi nga jëm loolu wax dëgg yàlla xéewal la gu rëy rëy rëy rëy xanaa di ñaan borom bi tabaaraka wa taala nangul ñu rek euh, loolu lañ ci amoon ci ay kàddu yu gàtt yu ñu doon yëkkati ci turu scientifique dañuy jox Serigne Abdou Seck bu wax ci turu organisation bi ak Serigne Fallou incha allah taala bu ñu ñu doog a jox Serigne Ousmane. mu tënkal ñu ko ci pulaar ngir gox bi nga xam ni fi lañu nekk euh, ñu ngi sof suñuy kàddu ci kàddu yu sëñ Alaaji Njaay euh, li wax leer na daanaka amul lu ci yokkaat xanaa rek méthode bi doon liggéeyee mooy invité nañ candidat yi ba ñëw ñu placé leen euh, def enveloppe yi enveloppe yi dañuy bind fu ñu neex ci alquran fii lay tàmbalee yam barab sàggam def ko ay enveloppe bi njëkkee enveloppe bi dañ koo teg rek kenn ku ne yaay ñëw jël sa enveloppe comme ni ñu ko waxee ñoom it mel na ni liggéey bi tàmm nañ ko miin nañ ba bi ñu leen ko joxee rek amul kenn koo xam ne maanaam sa enveloppe am na loo ci contesté amul loon amoo ci benn xalaat lu dul daal di bind tàmbalee bind xam moom day mel ni léegi loolu moo wax ne tàmm nañ ko ba léegi yëf yaa ngi gën a jëm kanam kon dañuy daal di feeñ waaw comme ñu ko ànd ak suñu sëñ Ousmane Diam mi nga xam ne moo fi moo fi représenté euh, kii bi commission bi ci biir maatam région Matam moom lañ ko dal ak Cheikh Ahmad Tidiane ñoom it taxawaay bu rafet ci wàllu organisation bi ñoo dalal euh, candidat yi ñu ngi jóge fu ne waaye bi ñu ñëwee fekk nañ ñu wutal leen barab bu ñu war dal fanaan fa ñu jox leen ay xeewal ñu xewlu ba xëyee ñu ànd ak ñoom accompagner leen ba indi leen ba ci fi barab bi ñu war a liggéey liggéey nañ fi liggéey bu rafet naa liñ ci dolliwaat lu am solo ndax si leer na lépp daal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salminde bandiraɓe e tan e yettude allah e julde nelatallah sallllahu alayhi wa sallam e, no musidɓe ɓe mbimi cheikh alaji ndiaye cheikh abdou e, ko tijjano ko ɓooyi ko kañum woni ɗo hannde rendinde ɓe ɓe ko candidat ji suɓɓanoɓe sappo e jeetato allah waɗi ngari hannde mbaɗi ko ponno wadde ko hay gooto kadi jaatirani caggal wiidata ko totta ko wawa ɗum tani tindina golle ɗe ne jaara yeeso eɗen jetta c3s c3s e gardugol uh, sérigne e denndaangal comité scientifique mo ngannduɗaa ko cheikh hadim dia ardi ɗum e denndaangal waddidiiɓe makko fof eɗen jetta ɓe liggey maɓɓe e ngarɗuɗo kadi ko ngannduɗaa liggey laaɓtuɗo alaa hay gooto heedi heeda gooto fof to tottaa ɗo alaa kaalnaaɗo ko ɗo windata alaa kaalnaaɗo ko ɗo windata waɗi hunde nde ne waɗi nunɗal ne waɗi potal mbeɗen jattaɓe hen no fewi comité comité scientifique gardiɗo o eɗen jattaɓe no fewi ligguey mabɓe o yaari reeɓi lawol nomin jiiri o refti hen ko ñagade bandiraɓe yafuya nde tawnoɓe gadi allah addiɓe ɗo guila hanki e kala tampere nde ɓe jii hen e caɗele nde ɓe jii hen on banggue nde tawno neɗɗo timmani e, kala koɓe jii hen ne ooñi min ñaaguiɓe yafoy on bangue assalamu aleykum wa kaddu bi ma yëkkati e kaddu cant la parce que mënuma wax li gën li sama xarit Alaji Ndiaye li mu wax ak bàyyi Serigne euh, kii Seck li mu wax ak sama xarit naataangoo Ama Tidiane li mu wax xanaa euh, mbégte rek sant waa C3S euh, gis nañ ñu taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxawoo ci journal bi wax dëgg yàlla bi leen waxee ne ñun li ñu soxla pour ñu am ñun tim journal parce que mënuñu bokk national may nañu loolu ba mu mot sëkk ak barke te def nañ ci seen loxo comme ni ñuy defee ci national bi gis nañ ko kon nag amuñu pay yàlla moom mooy fay yàlla na leen yàlla fay ci barke alxuraanu karim ñi nga xam ñoo nekk ci bopp bi kii liggéey bi macha allah ñu ngi leen di kii sant bu baax teguwaat ci e, dañu waxoon waa c trois s ñun ñooy corriger waaye ñun tim delloo nañ leen njukkal bi parce que nit mënul corriger boppam yéen ñi jógee national yéen la ñu jox mbir mi doy ngeen ñu sëkk ak barke waaye correction bi delloo nañ ko waa C3S national woolu nañ leen yéen a yore mbir mi kon di sant euh, candidat yi kon loolu mbégte la ni mu soree yëpp ñuy jóge tàmba ñiy jóge ci biir Kanel ñuy jóge ci biir Ranérou ñuy jóge ci biir maatam comme ni mu soree mais ñëpp fanaan si nañ bi ñu fanaan see aussi am nañ bërëb fi ñu dëkk lekk nañ naan nañ jóge nañ foofu fi ñëwaat fii ba wax dëgg yàlla waa C3S ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla fay leen euh, lii ñu commencé nag yàlla ñu yàlla may euh, ñu am si lu raw suñu njort kontaan nañ bu baax a baax seen alañ daan di sikki jërëjëf ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun